oto bi daal moom ni mu taxawee nii moom métti na ci ñun torop parce que fu mu nekk nii jaabi doxul dara doxul dara demul sax depuis avant tabaski oto bi taxaw gisuñu dara. gis nga place yi yëpp dañu tëj dara kenn jaayatul. da ngay toog journée ba ngoon doo jaay. boo jaayee dix mille francs wala cinq mille nga dem def ko dépense ñëwaat. bato bi moom bi mu taxawee mi ngi bëgg a yàgg. teewul nag ñu ngi sant yàlla waaye bu nu sañoon nag mu tàmbaliwaat ndax wax dëgg yàlla yu bari. xaw naa taxaw loolu lépp nag ci dogali sun boroom la buñ saña nag mu tàmbaliwaat daana def at mu jot mu taxaw lu mat weer ay defaraat wala waaye bi yoon moom wax dëgg xamuñu lu ko waral la bato boobu mu arrêté la suñu bagage nekkoon foofu yeneen yi ñu ñëw yeneen yi ñëw ko ba léegi ñu sonn nañ si nag ñu ngi ñaan nag ndimbal nguur gi bu ñu mënee dimbali ah teggil ñu si lii